سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ñu خليفة الأمر mbokk julit دي الهازي مام بكاي alkunti yi di nuyu mbokku taalibe yépp di leen woo ci bis bi nga xamante ni bii ñu ngi koy amal ci Njaasaan di ko màggale maam Cheikh Al mu yem ak fukki fan ak juróom benn ci weeru février fii ci Njaasaan ñuy woo mbokki taalibe yépp képp koo xamante bii بغي نا خام كان موي مام شال بكاي كونت دي دومي مام ابسا بوي اك مام شيخ ابو محمد الكونتي مام شيخ ابو محمد الكونتي فين جي سوف سني واخ سوف ندانك نار 1873 مو بايكو ندانك ñoo fi nga xamanteni moy bañ fall bi mu fa defee at di 1874 ci la maam Cheikh Al Bekkay Al Kunti yi gane jamono maam Cheikh Al Bekkay yi moomu bi muy am juróom-ñeenti at di 1883 la ànd ak waa juróom ñu sanc dëkk bii di Ndiassane ci 1883 ñuy tënk rek képp koo xamante ni bii bëgg na xam delloom gànnaar bi nga xamante ni bii boole nañ ko maam Kajaali Daabo am na ataaya joo xamante ni bii maam Kajaali Daabo defal na ko maam Cheikh Al Bekaay jooju tegul ci fourne tegul ci gaas te kenn taaloon matt kon képp ku bëgg a xam ataaya jooju nan la maam Cheikh Al Bekaay joxe ndigal maam Kajaali Daabo bu mu def ataaya jooju te kenn taalul matt kenn taalul gaz te kenn boylul fourne na nga fexe nga wuy si ci bis bi ñu mën la leeralal kan mooy maam Cheikh Al moom mi nga xamante ni bii moo fi toog diiru 15 ans jël xilaafa gi ci à l'âge ans toog fi 15 ans dundam di cinquante 55 ans kon bu mbiram yaatoo ba léegi war ngaa xam ni bàyyi na ay jàmbaar jàmbaar yooyu mu bàyyi tey jii mbir mii raam ba xilaafa gi ñëw ci caatal mu ànde ko ak njaboot gi di doomi maam Cheikh Al Becaye ak euh, sëti maam Cheikh Al Becaye ak sëtaat yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñuy taxawal bis bii nga xamante ni bii mooy bisu maam Cheikh Al Becaye ki góor gi nga xamante ni bii keroog bi waajuram di génn àdduna dénk na ko ñeenti dénkaane képp ko xamante ni bii bëgg naa xam ñeenti dénkaane yooyu nga xamante ni bii maam Cheikh bu Mouhamad Kunte woolu na maam Cheikh Al ci a ah, bisu àjjuma bi tàkkusaan jàllee jox ko ñeenti dénkaane yooyu xamal ko bis bi mu war a génn àdduna képp ko bëgg loolu leer la ñu ngi lay ñaan bisub keroog ñëpp mobilisé wu ñëw ci tànt bi ñu wax leen ñeenti dénkaane yooyu ak toogaayu maam Cheikh al Bekaay diiru fukki at ak juróom ci dëkk bi nga xamante ni bii mooy Ndiassane ñu ngi woo mbokki taalib yépp ñu wuy si ci bisu maam Cheikh al di bisu ñaan di bisu barkeel bu nee nit ñëpp ñëw ci bis boobu war nañoo xam ni bisu paj ajo la parce que dañuy wax mën leen ahlul kunti yi kuñ bokkalul maam ñoo la gën maam ndax liñ naan ñaanu xaas yàlla moo ko def ci ñoom xam naa nag fa lay tëjee sa kàddu ñu bokkalul maam ñoo la ki nga xamante ni mooy seen maam oq ba keroog bi nga xamante ni bii gane na jamono Sofiyatu bintu Abdul Mutalib da koo leewu indi ko ci sallaay sallam ni ko ñaanalal sa sët bii liñ naan toqantal keroog sallallahu alayhi wasallam moo ko defal sunu maam ba ndax moo dindi ci loram def ko ci génnam gémmiñu ba ni yàlla dina nangu ñaanu Uqba ba àdduna àddunay tukki Uqba du dund ba àddunay tukki mais njëriñam bi fii des di ahlul kunti yi di donnante ba àddunay tukki ñoom la yàlla di nangu seen ñaan kon bisu ñaan googu képp koo xamante ni bëgg nga sa aajo faju nanga rot si si tàntu maam Cheikh Al boobu lépp loo fa ñaan yàlla yàlla dina ko nangu ci barke maam Cheikh Al Becaye waaw date boobu moo yamoo le 16 février lay doon ci Ndiassane tombé ak bisub samedi bu ñu xëyee dinañ jàng alxuraan ndax ku ni alxuraan ni maam Cheikh al Bekkaay ndax boroom xam-xam bi mu doonoon nga xam ni waajuram taxaw na ko ba mu peeg bépp téere boo xamante ni bi yàlla wàcce na ko ci kaw suuf kon bisu maam Cheikh Al Becaye liñ ciy njëkk a woote mooy suba gi lépp dinañ wàcce kaamil njaasaan ak li génn njaasaan fépp fu daara nekk dinañu wàccee kaamil suñu jeexalee ci kaamil boobu ah sunu mag di Serigne Mohamed Kunta dina def waxtaan wu yaatu ci dundu maam Cheikh Al Becaye jàngatam ak yorinu dëkk bi xam-xamam dina yaatal lépp boroom xaram xam-xam bu mag boobu. dina dina dina yor waxtaan bi su jeexee ñu xewlu. suñu xewloo bëgg nañ 15 heures ñëpp dajaloo ndax dañoo war a àndandoo dem ziare ji maam Cheikh Al Becaye ci rawdu bi suñ fa jugee nag ñu commencé li nga xamante ni bii mooy cérémonie bi guddi gi nag ah dinañ ko gën a yaatal dundu maam Cheikh Al Becaye ni mu yoroon taalibe yi ni mu yore woon dëkk bi ak ànde kook ñoom Cheikh boog ñoom Pape Samba ñu ànd màggal guddi gi ñu ngi woo mbokki taalibe yépp le 16 février fii ci Ndiassane jërëjëf Fassane. subhanallah walhamdulillah la